wootee kon ak wuy ji leen ku jóg wuy ji aas am say ngërëm Tiwaawan a wootee kon ak wuy ji leen ku jóg wuy ji mam aas am say ngërëm Tiwaawan a wootee kon ak wuy ji leen ku jóg wuy ji aas am say ngërëm

ku jóg say ngërëm waawana woote kon nag wuy alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi delluwaat di santaat suñu borom ñu ngi ci kër xalifa bu tedd bi kan mu muy cheikh mouhamadunil mansour borom daara ji fii nga xamante ni moom mooy këram fii nga xam mooy kër cheikh al xalifa baayam gu tedd gi yal na yàlla yokk leeram ndax dégg nga woykat bi di ko wax naan najlil xalifati man shaat wilayatuhu bayna al bariyati duna shakkin wa tuhami fa lillahi alhamdu gis nga tey hommage bi ñu ngi jiital kaamilu alquran bi ñëpp di jàng li ñu wàccee ci ay xeetu kaamil yëpp kenn xamul nu mu toll yàlla na fi yàlla jaare yërëm mbooleem néewu jullit yi muy waajur yu jiitu yi xarit yi mbokk yi kóllëre yi am di jàmm yi jiitu barzaq yëpp yal na yàlla yërëm leen ci barke alquran bi ñu fi ñaan barke Serigne Mansour si barke ay baayam ak ay magam ak ay sëriñam yal na ko yàlla def bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wasallam kon nag tey ñu ngi nii ci kaamil gi ñi ñëw fii ndeysaan ziyaara ci raw doom bi ci tëraayam bu njëkk bi kon nag euh, ñuy ñaan suñu borom subhanahu wa taala waa 2STV seen taxawaay bi nga xamante ne taxaw ngeen ko ci kër Seydil Hadji malik ci l'islam bi yëpp yàlla gis na ko yàlla na leen yàlla fay bi jaay rasulillahi ñu ngi ñaanal bu baax di yeesalaat njaal ndax njaal du jeex du wees ñu dem di ko jaalewaat Serigne Habib ak magam yu di yi muy Cheikh Ahmed Tidiane si di xalifa Serigne Mansour si borom daara ji ñoom Serigne Moustapha Jamil ñoom Seydil Hadji Malick ñoom ñëpp fa lillahi alhamdu ak mboolem ñi nga xamante ne mooy usra maam Seydil Hadji Malick dégg nga léegi woykat bi di ko wax bi mu tiimee Serigne Mansour ci rawdu bi naan ko albirru daydanukum wal bazlu aadatukum wa nashru ilmin ala zuwaari kullihimi mu ne ko inna almasaila in azzat maaqiduha fal kul kullu yarju xallan li uqdihimi mu ne ko fu masa masa masala diine yi fu mu demee ba gàkk ba gàkk ba gàkk ba ñëpp jaxle xamuñu fu ñu koy lijjantee dañuy ñëw ci yow Serigne Mansour nga firi ko bu mu leer nañ loolu nag fa lillahi alhamdu loolu la yàlla def ci ñoom muy albirru daydanukum mu ne ndax mbaax seen aada la wal baslu aadatukum yëkkati di joxe loolu loolu moom ci yéen rek la nekk wa wa nashru ilmin ala zuwaari kullihimi di tasaare xam-xam di ko jox mboolem ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñëw di leen ziyaar di leen seet si kon nag fa lillahi alhamdu ñu ngi delluwaat di ñaanal usra Seydil Hadj malik yàlla na leen fi yàlla bàyyi ñu ñu yàgg fi lool ànd ak wér ànd ak tal ba li ñu bëgg ci diine gi ci mbokk gi ci tariqa bi yàlla na leen ko yàlla defal kon tey ji nii ci dimanche bi gis nga yëf yi yëpp mu ngi nii di tàmbali waaye 2STV incha allah fas na leen génnee won leen lépp loo xamante ne xew-xew la xew ci kër gi tey ci bisu tey bii muy omage bu ñuy rendre suñu xalifa bu tedd bi moom kan moom Serigne Mansour si borom daara ji moom mi nga xamante ni mooy bëhril ulumi Muhammadunil Mansouri man shaat mazayahu ladal buldaani am na benn xale bu tiim ko wax ko ne ko sa testament bi la Cheikh Abdoul Aziz joxe woon sirral xilaafati moom laa jàng at duba mi ndax 41 fois la ko jàng ca raw du Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif mu ne ko waaw mu ne ko dem naa Maroc toog fa rawdu cheikh ba jàng ko fa ngir rek di barkeelu yaa zal izzi wal karami yow mii borom daare ji yow laa di wax wuyuñu ñaanal ñu xéewal gu sax wal yumna bi niami najlul xalifati man shaat wilayatuhu bayna albariyati duna shakkin wa tuhami adcuuka ya rabbi ya rabbana xaaliquna mu ne ko nan mu ne ko yow daal amtir ala abd ala qabrihi ya rabbana abadan suxba alfalaaxi wa musna alafwi fi lkafani yàlla nañu yàlla boole nangul allahuma salli ala sayyidina muhammad waaye nag ñu ngi ñaanal bu baax a baax Mané Sow di ñaanal bu baax a baax ñoom Seydi Hadji Malick ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo topp ci caméra bi ci technique bi ci son bi ci lumière yi ngir lan ngir taxawal l'islam bi yal na yàlla fay bi jaay rasulillahi allahumma salli ala sayyidina muhammad ku jóguy imam as am say ngërëm yaawaloote leen ku jóg wuy imam as am say ngërëm Tiwaawana woote kondam wuy jiret ku jóg wuy imam as am say ngërëm Tiwaawana woote kondak wuy jileen ku jóg wuy imam as am say ngërëm Tiwaawana woote kondam wuy jiret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 إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الصابر الله العليم الذي لا اله الا هو الحي القيوم الصابر الله لا لا اله هو الحي القيوم الصغير الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والذي أسرتك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم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 هذا حدا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 ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم mbokki noo seetaan mbokki ci réew mi bés bu rëy bésu delloo njukkal bésu delloo orma kenn comme ni ma ko waxee ci diine ji waaye kenn ci njabootu Cheikh Hadji Malick kookoy mooy Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour ibnu Cheikh Seydi Aboubacar ibnu Cheikh Wadji Malick ci ngorom ci mbaaxam ca xam-xam li ñu tuddee nit ku multidimensionnel kooku moo nekkoon Cheikh Seydi Mouhamadul Mansour ibnu Cheikh Seydi Aboubacar kilifa yëpp na ñuy nuyu euh, Serigne Sidi Ahmed ibn El Hadj Abdou Aziz ibn Cheikh Hadji Malick Serigne Moustapha ak kilifa yi fi nekk yëpp ci njabootu Cheikh Hadji Malick léegi nag pour ñu door liggéey bi maa ngi jox kàddu gi xalifa Ababacar Gaye moom mi xam ne mooy vice président commission bi mu dugg nag ci liggéey bi xalifa bismillah jërëjëf sëriñ léegi dañuy tàmbali dañuy euh, Mouhamadoul Bachir Ngom di docteur en sciences islamologiques jàngee ci université yi gën a kawe te doonoon kenn ci Serigne Mansour moom surtout maam Rawane Ngom la ca Paal. moom dafa ne Bachir dafa tàmbu Pape Makhtar ubbil ko mu door a tàmbali bismillah alifati wala ilaw alahu yunil muridaka ma yarda wa ya bay bayna na zawrul xalifati wal ilaw ala yuni muridaka ma yarda wa yawa قلبي نالمون فاسأل به كل ما نتراه من الشيطان الرجيم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 walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma taddacuun nuzulan min gafurin rahim walqaaili fi muxkami tanzilih ala inna awliyaa allahi laa xawfun calayhim wala hum yaxzanuun alladina aamanuu wa kaanuu yattaquun lahum albushra ila axiri alaaya wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa xabibina wa shafiina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ali beytihi wa asxaabihi wa xulafaihi altayibin altahirin wa man walahum wa tabiahum bi ixsanin ila yowmi ddin wa rida allahi alxaalid an cheikhina wa imamina taaji alaarifina wa imami almuqarrabin mawlana wa cheikhina abil abbaasi الشريف الفاطمي الحسني أحمد التجاني الشريف رضي الله عنه وآل بيته وأصحابه وخلفائه ونخص بالذكر من أولئك الخلفاء الأكابر جدنا وشيخنا ووسيلتنا إلى ربنا مولانا الشيخ الحاج مالكا عليه رضا العزيز المالك وعن كافة أولاده wa xulafaihi wa muqaddamihi ridwanullahi alayhim ajmain wa an kaafati ahlillah asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi ji ngi ñaan ñépp bokk toog ànd ak dal te ñu wàññi coow li ñi ci ginnaaw féete ci organisation bi nekk ci bunt bi lépp mën na dox te du ànd ak coow ndax waxtu waa ngi sori te liggéey bi tàmbalee guñ ko fa tabaarakallaahu thème yi nga xam ne moom lañu ñu war a traité ñetti thème la bu njëkk bi moo di cheikh alxaaji mouhamadul mansour si alxalifa qaddasa allahu sirrahu wa nawara dariha wa nafaana bi barakatihi wa bi ulumihi wa bi asraarihi moo ñu fi dajale tey en tant que waaye en tant que cheikh tarbiya ndax dañuy wax ne ñetti sëriñ ñoo am cheikhu taalim wa cheikhu tarbiyatin wa cheikhu tarqiyatin kenn werantewul ne cheikh alxaaji Mouhamadul Mansour yooyu yëpp daje woon na ci moom waaye ñu jël ci sëriñ Mouhamadul Mansour si boroom daara ji en tant que éducateur ci wàllu yar defar nit defal ko tazkiya tàqale ko mbooleem al awsaaf ad damima ak mbooleem jikko yi nga xam ne dana gàllankoor nit ba du mën a àgg ci boroomam mawdu boobu ki koy waxtaane moo di fadilatul ustaad al cheikh al docteur Mouhamadul Bachir Ngom incha allahu mooy jël kàddu léegi ñaareelu thème bi moo di ahamiyatul waqt inda suufiya temps ban jagle la am ban importance la am ci nitu yàlla yi ñu jël ci sëriñ bi di sëriñ Mouhamadul Mansour radiyallahu anhu wa arda comme exemple ki koy traité mooy al oustaz al akh al fadil Cheikh El Hadj Malick Fall mi nga xam ne mooy directeur général bu institut Qadi Omar Fall ci Pire incha allah mooy topp ci xaj Mouhamadul Bachir te mu ñetteel bi moo di jëf yu baax yi nga xam ne. sëriñ bi daana ko def al amal al te ku ci nekk xam na ne yàlla nee na wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda xayran wa acdama ajra yàlla nee na lu ngeen jiital ci lu baax ci yiw defal ko seen bopp bu ëllëgee bu ngeen fi jógee ba nekk ca këru dëgg ga da ngeen fekk lépp yàlla dencal leen ko mu ñoŋ dara du ca manki te ku ci nekk xam na sëriñ bi li mu def ci mbaax li mu def ci yiw te la ca jiitu mooy jàngale maye ay kër ak yeneen ak yeneen ak yeneen fa tabarakallahu taalubeem bu ñuy wax Cheikh Ahmed Tidiane juuf nga xam ne inspecteur la ci langue arab moo koy waxtaane defe naa ne thème yii rek benn bu ci nekk doy na sëkk ñu yendu ci ba ngoon te du jeex comme que dañoo ñëw pour taataan ku nekk da nga war a toog buñ mënoon a fay portable yi sax ñu fay ko wala ñu def ko mooy silencieux bàyyi ko ba santé bàyyi déeyoo ku nekk consacré wu ci li nga xam ne moo ñu fi tax a ñëw ñu ngi ñaan waxkat yi daal ba léegi ñu ngi wax ci ginnaaw ñu may ñu tuuti léegi nag ñu ngi leen di présenté alxaaji Mouhamadul Bachir Ngom yaakaar naa ne kenn du ko présenté kenn ci Sénégal di sët ci góor gu baax nitu yàlla bu mag di maam alxaaji rawxaan ngom radiallahu anhu wa nafaana bi barakaati ñépp xam nañu digganteem ak maam cheikh alxaaji malik ànd bu rafet ci wàllu yàlla kóllëre gu sax waaw mag ñi dem njaboot gi di ko saytu ba léegi te xaaji mouhamadul bachir bokk na ci ñi koy gën a dëgëral ci ay waxtaanam ci ay aktam ci ak ay lépp lépp di boroom xam-xam jàng fii ci Sénégal li mu war a jàng ba noppi yàlla dogal mu dem Égypte ca université ba fa gën a mag di atul azhar al sharif nga xam ne boroom xam-xam yu mag yi ci aalamul islaami yépp fa la ñu génne nekkoon ci kulliyatu usuli diin fa la jànge ba am fa doctoraam def thèse bu am solo ci dundu maam Cheikh Alxaaji Malik radiallahu anhu thèse bu am solo ci dundu maam Cheikh Al Hadj ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ñu bañ man koo móol man ko traduire ci langue yépp ku ko jàng inchaa allahu taala loo bëgg xam ci dundu maam Cheikh Al Hadj fan la jóge njàngaleem ci wàllu yar lan mooy yar waaw jaar-jaaram ba keroog muy génn àdduna ay taalifam ay ijazaatam liggéeyam yépp xaaji Bachir indi na ko ci téere boobu fa tabarakallah kooku nag bu taxawee di wax ci yar am na fu baax fu ko teg am na itam cëslaay ci wàllu xam-xam bu dëgër bu ko mën a teg xaaji Bachir moomu itam bi mu ñëwee ba léegi noppaluwul benn yoon mi ngi fii ci université bi nga xam ne moo nekk ci piir fa lay joxe ay duruus di fa jàngale di jàngale fii itam ci zawiya maam Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu liggéey yu bare bari ci wàllu xam-xam ak wàllu gëstu mu ci yëngatu moom la ñuy dalal jàmm fal yatafaddal mashkuran waxtaanal ci cheikh alhaaji mouhamadul mansour en tant que éducateur bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin alladi manna ala almuminina id baada fihim rasulan yatlu alayhim ayatih wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaaba walxikma wa in kaanuu min qablu la fi dalaalin mubiin wa azka salawaati rabbi wa asfa salaamihi wa anma barakaatihi ala xayri xalqi xabibi rabbi sayidi rusuli imaami anbiyaai xaatimi rusuli mazhari lutfi ayni rahmatihi sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi tayibina tahirina ajmain mawlaay cheikh abdul aziz amini cheikh abdul aziz amina alxilaafa tijaaniyati assalaamu aleykum aljumhur almubaarak inna alxadiisa an shaxsiyati alaarif billah alxalifati almarxum mawlaaya cheikh Mouhamadin al Mansour laa yaxtalifu عن عرض قصائده ومنشوراته العلمية لعدم وجود فجوة بين الموضوعين فهو معروف بأخلاقه الفاضلة التي من أبرزها الجود والإيثار وحب الخير والسلام للجميع وإلى ذاته وشمائله وشيمه الرفيعة ترجع روح قصائده الأمداحية ومن أخلاقه تنبع إرشاداته الربانية فالاستماع إلى شيخ محمد المنصور تربية والجلوس عنده تربية ومعاملته تربية وقراءة أعماله العلمية تربية mbokki jullit yi ci gàttal gu noonu lañ ko sàkkoo Cheikh Mouhamadul Mansour mi ñuy bugg yoo waxtaane léppam dafay tarbiya moo tax yuallimu za wa yuraqi sa ila an tajalla fi suduri l qawmi nuru léppam jàngale la léppam tarbiya la waaye daf leen boole woon ñoom ñaar róofale leen bu dañu taqatli ko comme naka maamam ju tedd daja doon defee Cheikhul Hadj Malick Sy li ñuy bëgg a waxtaane war na dem ci juróom-ñeenti point bu njëkk bi mooy Cheikh Mouhamadul Mansour ni mu feeñale fésale importance bi nga xam ne tasawuf am na ko tarbiya am na ko ci biir tasawuf ñaareel bi mooy Cheikh Mouhamadul Mansour doctrine wala manhaj bi mu jëloon pour tarbiya ñeenteel bi mooy euh, quelque euh, maanaam pied yi nga xamante ni moom la Cheikh Mouhamed Mansour daan sukkandiku pour tarbiya hmm, juróomeel bi mooy Cheikh Mouhamadul Mansour nan la gisee ab sëriñ ngir na ma nekk murabbi juróom-benneel bi mooy Cheikh Mouhamadul Mansour nan la gisee woon diggante xam-xam ak koo xamante ni dañ ko war defal tarbiya juróom-ñaareel bi mooy. ba mu ba muy tarbiya moom Cheikh Mouhamadul Mansour dafa am juróom lu dem ci ñeenti point yoo xamante ni ci la daan repéré wu yëg ni war nañu defal yi ñi nga xam ne ñoom la ñuy defal tarbiya juróom-ñeenteel bi mooy yan objectif la Cheikh Mouhamadul Mansour doon namm pour réaliser ko ci tarbiya euh, juróom-ñeenteel bi te duñ ko tudd mooy andi woon nañu lu dem ci téeméeri nit yoo xam ne sunu mbokk alxaaji Malick Sow joxoon nañu ko ñoo xam ne Cheikh Mouhamadul Mansour daf leen jàngal tarbiye leen ba nga xamante ni fa ñu nekk mën nañu def tarbiye mën nañu def taalim fa asbahu shuyuqa taalimin wa tarbiyatin Cheikh Mouhamadul Mansour radiallahu anhu ca Djamena ca Tchad fa la doon leerale importance bi nga xam ni tasawuf am na ko ci dund ab jullit ci biir loola ca la doon leerale l'éducation spirituelle importance bi mu amit ci tasawuf loola mu sukkandiku ni mbooleem yàlla yonent yi mu yónni yépp ñaar la leen sant mooy jàngale ak tarbiya huwa alladi baada fi l ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatih wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba walxikmata wa in kaanu min qablu la fi dalalin mubin cheikh Mouhamadul Mansour dafa rëdd li nga xam ni mooy tarbiya bi mu mën a bi war a jaar pour tarbiya doomu aadama yi waaye mi ngi sukkandiku ci bi nga xam ni ci la Serigne Babacar sukkandiku woon ci la Cheikhul Xaaji Malik sukkandiku woon ci la Cheikh na Tijaani radiallahu taala anhum sukkandiku woon mooy at tarbiyatu bil himmati wal xaal himma nag buñ ko bëggoon dégg tey mooy la cheikhul xaaji malik doon junja ca fala budda ala himmati fajal ilahi aliyatan li an sirtu xurran xaalisan kulla wijhati bépp doomu aadama bu ñu yëg ni am na yitte te yitte ja libéré ko ba nekkatul laru kenn nekkatul jaamu kenn dara mënatu ko tënk du bànneexu bakkan du daraja du leneen du pal du àdduna dara mënatu ko tënk li fekk yitte mayul loolu doomu adama doomu aadama amagul yitte parce que yitte dafay libéré dafay libéré doomu aadama comme ni ko Cheikhul Haaji Malick junje tarbiya bil himmati wal xaal Cheikh Mouhamadou Mansour da ci sukkandiku ci ifhaamul ifhaamul munkiril jaani yi tudd ko ci téere boobu nga xamante ni moom laa tuddoon léegi bu jëkk bi mooy a tarbiyatu bil himmati wal xaal mi ngi mën a sukkandikoo ci ñetti point ñetti point yi benn bu nekk am ñetti point bu njëkk bi mooy muamalatul muamalatul xaqi maanaam ni ngay jëf jëflanteeg sa borom booba ñetti point bi bu njëkk bi mooy iqaamatu sa iqaamatul faraid lépp lu la yàlla wax ne lii farata la lu mu la sant nga def ko ak defin woo xam ni doo ci yëg keneen ku dul sa borom mi la ko digal ñaareel bi mooy lépp lu la tere nga bàyyi ko te bàyyi ko doo ci yëg keneen ku dul sa borom mi la ko digal bi mooy mboolem ahkaam yi az-zahira wal batina zahira mooy la digal ak la tere mais al batina mooy dogal yi turidu rabbana muridu wa urid wala yakunu rabbi gayra ma turid qaddir lana ridwana wa taslima li ma turidu ya xakima rabbi qadayta faradaytu la sëñ Babacar Si radiallahu taala anhu kon doomu aadama buñ koy defal tarbiya bi himmati wal xaal la ñuy jëkk a def ci moom mooy loola ñaareel bi mooy muamalatu nafs moom itam ñetti parti la bu jëkk ba mooy al insaafu fi l xaq dëgg gënal la lépp fu la dëgg dabe nga nangu fu mu la dabe nga wax ko ñaareel ba mooy euh, ñaareel ba mooy Euh, tarkul insaafi laha muamalatu nafs bu jëkk bi mooy nga fexe ba not ko ba mu ñeme dëgg ñaareel bi mooy tarkul intisaafi laha lépp loo xam ne bakkan bi nee na defal ma lii parce que maay diw nga ñettagu ni ko doo ko am ñetteel bi ñetteel bi mooy alxadar min gawailiha ndax bakkan léeg mu diggal la boo demee ci awaarif fil maarif bu Cheikhul Xaaji Maalik di sukkandiku dafa lay wax ni bakkan dafa am yuy rot si ci moom di rot ci xol di rot si ci xol alwaaridaati nafsiya walwaaridaati rabbaniya walwaaridaati cheytaaniya kenn defal tarbiya fokk mu tarbiya la ba nga xàmmee lépp luy ñëw ci xel mi ndax loola ci yàlla la bawoo wala ci cheytaan yi la bawoo wala ci bakkan bi la bawoo ñetteelu point bi te mooy muamalat al alxalq mooy jëflanteeg doomu aadama yi bu jëkk bi mooy lépp luy àq lu dox sa digganteeg nit ak ku mu mën a doon àq ja nga matal ko sëkk ba dara du des ñaareel ba mooy dootoo def dara loo xam ni day soppi xolu doomu aadama yi ci yow dootoo def dara lu la doomu aadama di meree lu dul dëgg goo xamante ni sharia neen la def ko juróomeel bi mooy la ñetteel bi mooy nga moytu lépp loo xam ne doomu adama ka xas moom moo xam ak mpal la moo xam alal la moo xam lu mu mën a doon nga bàyyee ko loolu bañ ko sakku juróom-ñeenti point yi li fekk doomu aadama ci gis-gisu sëriñ Mansour mu ballaloo ko ci ifhaamul munkiril jaanib bu maamam Cheikhul Hadji Malick si nee na kuy defal nit tarbiya te juróom-ñeenti point yi réalisé woo ko ci moom defal goo ko tarbiya Cheikh Cheikh Sidi Mouhamadul Mansour radiyallahu anhu gis na ni tarbiya li muy tekki mooy yokk nit ki defaraat nit ki yokk nit ki waaye nee na boo delloo ci ifhamul munkaril jaani ba tey dañ ca fekk ni tarbiya mooy nga fexe ba nit ki niru yàlla tarbiya huwa naqlul muridi ila ma araada allahu taala min altaxalluq bi axlaaqihi aljamila wa ittibaai sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam tarbiya mooy nga fexe ba nit ki niru yàlla ci tabe ci yaatu ci teraanga bugg a jàmb am njariñ pour ñépp képp ko toxalul nag jële ko ci safaan yóbbu ko foofa dafa la ko tarbiya tarbiya deuxième point bi mooy nga fexe ba nit ki topp sunna seydina muhammad lépp kon koo defalul loola dafa la ko tarbiya li nga xam ni cheikh mahamadul mansour doon na ci sukkandiku mooy usulu tarbiya nekk na moom juróom-ñeenti point yi moom itam dañ koy junj juñu gaaw mooy tasxiixul bidayati bidaayat sayr ilallah nga fexe ba nit ki fi ngay départanteeg moom mu nekk fu baax mu taxaw ala ardin salba nga xam ni am na istiqaama rabba bila xalwatin asxaabahu alanan xatta istaqaamu fa yaa lallahi man xaahu ñaareel bi mooy tasxiihul ictiqaad mooy nga fexe ba nit ki gëm yàllam dootu ko jaawal jaawaleeg dara ñetteel bi mooy tasxiihul mutaabaa ba mu xàmmee ni naa Muhammad nii lañ ko war royee nii lañ ko war toppe ñeenteelu point bi mooy nga fexe ba mu xam ni kii mooy ab sëriñam doy na ko sëkk lépp lu mu ndar wuti ci keneen dana ko fekk ci yow juróomeelu point boobu nga mu fexe ba mu tuub tuub gu wér te tuub mooy la mu nekkoon mu ba ko jublu leneen ñeenteel bi mooy mu fexe nag ba képp ku amoon la moom problème mu fexe ba kooka kontaan istirdaul xasmi zaliman aw mazluma koo amaloon problème ak moom nga fexe ba lijjanti ko ba dootoo mere kenn ki la mere rek nga fexe ba mu bég juróom-ñaareelu point bi mooy taxaw fi nga xam ne fireel sa borom nee na yamal nga yem foofa juróom-ñetteelu point bi mooy fexe ba jàng parce que sëñ Mansour nee na taalibe bu jàngul neexul yóbbu ci yàlla juróom-ñeenteel bi mooy taalibe fokk mu yëg ni dafa ñëw ci àdduna pour am xilaafa rabbaniya du sàggane àddunaam du sàggane alaxiram wabtaxi fi ma ataaka llahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia cheikh Mouhamadul Mansour nee na sëriñ ngir na man def tarbiya nee na ñett yi faw mu daje ci moom bu dajewul ci moom manqué na bu njëkk bi mooy taalimul atbaai ulum ab sëriñ dafay jàngale sëriñ bu mënul jàngale jàngalewul sëriñ Mansour nee na kooku manqué na ab sëriñ moom la bu ko waxee jar naa gëm te mën na leer ci jëmmi boppam ñaareel ba mooy dafa war taxaw di defar doomu aadama yi tazkiyatu nufusihim wa taqwimu sulukihim wa tarbiyati arwaxihim ab sëriñ bu mënulee fexe ba bakkan bi jub fexewul ba bakkan ba xol sel fexewul ba ruux sel mënagul def tarbiya ñetteel ba mooy ab sëriñ dafay fexe ba heure bu talibaam yëkkatee kàddoom mu wuyu ko ca la mu yëkkati bu wonkoo bu wonkee mu dem fexe ba wonko dañ bu bëggee mu dem fexe ba ànd ak moom mbégte googu ab sëriñ bu manqué loola manqué ab sëriñ ci euh, téere maanaam ci taxawaayu sëriñ Mansour radiallahu taala an sëñ Mansour nee na yi nga xam ni ab sëriñ war na ci jublu pour defar doomu aadama pour tarbiya doomu aadama ba sa jëkk mooy teqatle doomu aadama ak bàkkaar fexe ba ki topp ki nga xam ni moo la topp nga di ko jubbanti ay bàkkaar néew ci ay mbiram ñetteel ba mooy nga fexe ba mu am jukko yu rafet tazwidul muridu sali tazwidu muridi salik bil fadaili wa chiyam ñeenteel bi mooy ruuxam nga fexe ba mu sel juróomeel bi mooy nga fexe ba taalibe bi lu mu mën a am ci àdduna loola du nekk gàllankooram yëre yi bu rafetee du ko gàllankoor kër gi bu rafetee du ko gàllankoor ndax bëtam teg na ko ci boromam subhaanahu wa taala ñeenteelu juróom-ñeenteelu point bi mooy nga fexe ba taalibe bi jub comme ni ko bàyyam tudde juróom-ñaareelu point bi mooy boo dajalee yooyu yëpp da nga àgg ila salaamatil xab xal bi te loolu la yàlla wax ni moom dong mooy jëriñ yowmal xiyam yowma laa yanfau maalun wala banuun ila man ata allaha bi qalbi salim seydna muhammad ni ala inna fi ljasadi la mudga ida salaha sala sala ida salahat salaha aljasadu kullu sëñ mouhamadul mansour nee na doomu aadama foofu lay góor góorloo sëriñul murabbi ba taalibaam àgg foofu te boobu bu fa àggee ci lay mën a nekk dëgg dëgg jàmm sëñ mouhamadul mansour comme niñ ko junje woon nee na bépp sëriñ bépp taaliba boo xam ne ànduñu ñoom ñaar sëriñ bi di jàngal taalibe bi taalibe bi di jàng suluk bi ñu am tarbiya ba du nekk tarbiya waaye day mujj nekk tasbiya day mujj a nekk rek tasxiir donc jàng ak jàngale loolu ci la tarbiya di duggee ci biir loola moo tax maamam jëni alaa ya bani zamani daawtukum li ixyaai diinin bil ulumi fa ajibu ci gàttal ma tënk maxaawir yi nga xam ni ci la Cheikh Mouhamadou Mansour def tarbiyam bu njëkk ba mooy a tarbiya la xusnu danni bi la xusni danni billahi taala wa bi ibaadi sëriñ Mouhamadul nee na tarbiya boo koy defal nit war nga fexe ba muy rafetal njortam ci boromam subhanahu wa taala rafetal njortam ci jaam yépp xam nga lu muy jur loolu nit bu rafetee njort ci yàlla lu mu def def lu juunu junu mu dawuti yàlla ne ko man ma jàmb jàmbu ñàkk bi jom jéggal ma rek loolu day tax jàm bi gaaw àgg ci boromam subhaanahu wa taala tarbi bi euh, naas binnaasi nee na bu sa njort rafetee ci doomu aadama yi dootoo ama kenn problème lu doomu aadama juum juum juum juum ci yow da nga naan xëy na nangam la bëggoon def looloo tam kenn ku nekk xam na ni dafa am suluub bu muy bugg def ci doomu aadama ndax doomu aadama mooy xol te xol bi fexe na ba doomu aadama bu juumee lu juum yi rëy rëy mu ne bëggul woon def loolu lii la bëggoon def wala dafa juum rek doomu aadama manqué ñaareel ba mooy at tarbiya ala taawuni ala albirri wa taqwa nee na képp koy defal tarbiya te defaloo ko ba mu mën jëflanteeg doomu aadama yi ba moom li mu baax li mu jox ko doomu aadama yi li mu bon li yëpp mu denc ko ci biiram nee na boo defaloo taaliba mu àgg foofu defalagoo ko tarbiya sëñ Mansour te loolu mi ngi ko defoon ci jàkka joo xamante ni moo doon jàkkay tubaab jalaaw nekkoon 1910 loolu yàggul ci la doon wax naan fokk tarbiya am loolu ñetteel bi mooy tarbiya ala taxamulil aza wa fahmi falsafati al ibtila al ilahi loolu cheikh Mouhamadul Mansour daf ci jublu woon ni yi xewoon ci kër gi te nee na loola du xew mukk ci kër gu tolluwul na kër gi moo taxoon mu xewoon ci kër Cheikh na Tidiane radiyallahu taala anhu xew ci kër Cheikh El Hadj Umar El Fouti xew ci ëttu Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mooy ak juyoo ci biti waaye dëppoo ci biir mu jëfandikoo ñaari aaya wa taqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minhum minkum xaasa wa alamu anna allaha shadidul iqab wa atiu allaha wa atiu rasul ak wala tanaazacu fa tafshalu wa tadhaba riixukum loolu mu def ko ci téeréem boo xam ne mooy tanbihul munhamikil jaaxil ñeenteel bi mooy tarbiya ala riayati alxuquq wa adaiha ila asxaabiha kooku mi ngi koy def ci téeréem bu ñuy wax almahajatu albayda fi inqaadi al ummati algarra cheikh Mouhamadul Mansour radiallahu taala anhu nee na booy defal nit tarbiya war nga fexe ba benn àq dootu ko topp moom du soxna duy way jur duy dëkkandoo ak ku mu mën a doon dana fexe moom ba simmiku ci xàq yooyu ndax xàq yooyu dong moo andi yow ma yafirru lmaru min axi wa ummihi wa abihi wa saaxibatihi wa banii li kulli mriin minhum yowma idin sha'nun yuxni juróomeel te mooy li nga xamante ni Cheikh Mouhamadul Mansour yëg na ni bépp doomu aadama bu àggul ak nit ki foofu defal goo ko kon nadacu llaha taala wahuwa alqadir wa huwa latifu alxabir an yazida mawlana Cheikh Mouhamadul Mansour tashrifan wa takriman wa taadiman wa rahmatan wa xufraanan wa uluwan wa atilaan wa faxran wa iftixaaran wa izzan wa atizaazan wa faydan wa qabuulan wa rifatan wa irtifaan fi lmalai al aala wa fi jami alxadarati amin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil aalamiin والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه أجمعين yéen mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu def li ilmul balaagati jàngale rek lii tax ñuy xasaf al musnadu ilay rëbbkat bi bu dee rëbb ba ngoon jot mu deme deme dem ba yaakaaram xaddi nit dina am lu mu rëbb jékki-jékki gis ak lëg du fi nekk naan lëg gaa nga ne wala danaan lëg rek kon comme léegi dañ naanu lëg rek dem directement ci thème bi lii mbokk yi sàkk woon ci man ma wax ko mooy ahamiyatul waqt inda suufiya al cheikhu muhammadul mansour si namudajan maanaam li ñuy wax temps solo si nga xamante ni bii daf ko am ci dund jullit rawatina suufiyanke yi sëriñ mansour si ana lan lañu mën a wax ci ni mu jariñoo woon taawam ba mën a réaliser réalisation yu mag yi nga xamante ni bii def na ko ci dundam arab nee na waxtu al waxtu huwa al xayaa waxtu mooy jëmmi dund doomu aadama am ñeneen ñu wax ni al waxtu min zahab temps mi ngi chéré ni wurus ni wurus chéré ci am amu doomu aadama aadama ci kaw suuf noonu la waxtu chéré mais am ñeneen ñu wax lu gën a garaaw loolu ñu ni adhahabu min al waqt non temps wurus ci boppam moom mooy jóge ci temps ndax wurus li muy cher cher temps ak espace ñooy li nga xamante ni bii ñoom ñoo ko ñoo ko wër loolu moo tax mais bu ñu demee ci suuf suufiyanke yi maanaam sëriñ euh, doomu aadama buy dund ci kaw suuf da ngay am classe maanaam da ngay am ak masse dañ lay classé ñu ni diw fii lañ koy classé ñii ñooy ak maasam ñii ñooy ak moroom ay moroomam sëñ Mansour tey bu ñu ko doon classé dañ koy classé ci suufiyanke yi ñoom suufiyanke yooyu ana nan lañu euh, melale importance su temps ñoom dañoo wax ni anfaasu umrika asmaanul jinaani sa nokk yi nga xamante ni bi moom ngay nokki ci sa dund gi yow doomu aadama li la sunu borom subhaanahu wa taala wërsëgale nga war ko noyyi fi nga ne uwee bu jëkk ci kaw suuf mooy takku ba nokki gu mujj ga ngay mujj a nokki nokki yooyu mooy prix bi nga xamante ni bii moom la la yàlla tàggatal nga war koo jariñoo ni nga ko jariñoo ëllëg ñooy nekk sa njëgu aljanna kon boo xoolee suufiyanke yi ñoom yemuñ ci temps rek li ñu ñu namm ci temps mais ndeke ñoom pour ñoom nokki gu nekk temps la boo xamante ni bii dafa am àq ci yow nekk amaana kóolute bu la suñu boroom xéewale nar la ko laaj ëllëg boo xam foo ko defoon loolu moo tax ñu gis ni kon temps li doomu aadama di am ci kaw suuf temps mooy li nga xamante ni bii moo ci gën a cher ginnaaw xéewalu sunu borom subhaanahu wa bam la bindee boole la ci ummatu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ummatul ijaaba li doomu aadama gën a cherle ci kaw suuf mooy temps mais malheureusement ñun nit ku ñuul malheureusement il faut ma wax ko ñun nit ku ñuul li nu gën a yéwén mooy temps te c'est très dangereux bu yàggul am naa mbokk moo xamante ni bii moo a mujj Europe mais nee na ma tubaab yi dañuy daw rek mais bu dee ñun liñ gën a yéwén mooy temps te xoola tey ñi ñuy roy fii ci ëtt bu tedd bii ñu nekk te Seydil Haaji Malick si radiyallahu taala fakkoon ko ci daara ak tarbiya da ngeen di xool ñoom nan la ñu définir importance su temps nga xamante ni bi temps kon ñun ñi nga xamante ni bi ñooy askanoo ci mag ñi suufiyanke mi ngi tàmbalee ci nokki yi ñuy nokki ñu koy def muhaasaba mais malheureusement ñun ci temps lañu ñu gën a yéwén te boo demee ci biir ma jukki ko benn nitu yàlla nee na koo xamante ni bii mag ñi ñoo ko defar yar ko mu ni adraktu aqwaman kaana ahaduhum ashaha ala ala umrihi ala waqtihi ashaha ala waqtihi min dirhamihi nee na sunu borom defal na ma xéewal ma dund ak ay mag yoo xamante ni bii ci seen waxtu ak seen temps ci la ñu gënoon a nay que seen dërëm boo xamante ni parce que jamono yooyu dërëm moo nekkoon alal mais ñun nag ci waxtu lañ gën a yéwén te yonent bi alayhi salaatu wassalaam teeloon na ko wax yonent bi nee na woon na nicmataani maghbuunun fihima kathiru min annaas alsihatu walfaraax am na ñaari xéewal yoo xam ni sallallahu alayhi wa mooy wax lu nit jàmbaare jàmbaare jàmbaare jàmbaare ëllëg bu la sunu borom réglé xam ni xëb nañ nax nañ la muy ban ak ban muy wérgu yaram ak temps bi nga xamante ni bii moom la Yàlla jox doomu aadama ndax doomu aadama li muy réaliser lépp ñaari condition yi nga xamante ni bii mooy yi nga xamante ni bii mënta ñàkk bu jëkk bi mooy na nga am wér ba ca topp mooy nanga ko tal yonent bi alayhi salaatu wasalaam dénkaat aw xeetam ni nangeen ngeen màng na ngeen profité ci juróomi yëf avant juróomi yëf di ñëw yow doomu aadama na ngeen na nga màng sa dund gi nga profité ci doxal mission bi nga xamante ni bii moom la fa fi yàlla ëndee avant de di ñëw yow doomu aadama nanga nga profité ci sa wér gu yaram ci ngir ngir dimbali koo ko dox mission bi bala wére day ñëw yow doomu aadama nanga nga góor góorlu ci temps bi la yàlla may nga def li nga war a def bala ñàkkatal di ñëw yow doomu aadama nanga nga profité ci sa jeunesse sag waxamaane ki nga xamante ni bi mooy fleur de l'âge xata ida balaga arbaina sana xata ida balaga ashuddahu wa balaga arbaina sana nga xam ne fi la kattanu doomu aadama di gën a les forces vives yi nga xam ne suñu borom mooñaal na ko doomu aadama fi la ñuy joxee dëgg dëgg dëgg muy ay cëram di xelam di xolam ba ci ruu gi ndax ruu ak jëmm dañoo am relation boo xamante ni bii lu naqaree expliqué la yo salaay sallam ne kon yow doomu aadama bi na nga profité ci sag waxambaane balaa sag màggata ñëw loolu lépp boo ko xoolee mu nekk loo xamante ni bii dafay won doomu aadama yi ni nga xamante ni bii noonu la ñu war a fonke seen temps juróomeel bi mu ne yow doomu aadama na nga profité euh, ci bu la yàlla defalee am koom bu la yàlla mën loo lëf na nga profité loolu nga def ko balaa ëllëg nga di ko tële di ñëw sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax euh, sëriñ Mansour dañ koy classé ci suuf yanke yi mais dañ koy classé ci suuf yanke yi nga xamante ni bii dañu doon jàngale dinay wax toujours sëriñ baatu sëriñ neex na lool euh, baatu Mansour tam tur wi ni mu rafete ak ni mu wuyoo borom mais man borom daara ji mooy li xalif général de Tidiane tuutiwul ah gënu ko rëy mais nag euh, borom daara ji ku xam daara ji ni mu toll di Seydil Hadji Malick fàkkoon naari gànnaar yi woy ko fépp ñëpp woy ko ak daara ji lim produire xaj xaj na fi xaj xaju fi kañu dem ni yow yaay borom daara ji taman fekke naa ba tey cheikh alhaji abdul aziz si radiallahu taala anhu wa an abaihi wa ixwatihi wa rijali tariqati wa kulli saalihin naar ñëw fii mu di ko présenté sëñ Mansour ni huwa alladi yatawalla jamia dirasati huna kon man loolu mooy li ma gën a saf ci sëriñ Mansour maa ngi fàttaliku alaaj Abdu génne àdduna mu def ci taqrisam bu rafet boobu daal di ñuy woo man mbayloo Abdou Aziz Sarr ni dox leen ko Oustaz Ngiraan ñoom ñëpp dama bëgg sama xasida bi ngeen def ci taqris yéen ñëpp am am na lu ma doon góor góorlu sax bani ko ayaama benn bëy rek laa ci jàpp ca xasida ba mu ni ma ma ni ko ayaaman sara sirru smihi fii xayaatihi fa jaatka mil mawlal xisaalul makaarimu bi ñu egsee foofu mu ne ma wax mil mawla mu ni la mil mawla kontaan yéemu daal di tàmbali bayit ya nga xamante ni bii mu nga ca daaliya fa fa ko dàll daaliya waxee kon dañuy gis ni kon buñ ko classé ci suufiyanke yi dañ koy classé waat ci ñi nga xamante ni bii moom moom mooy borom xam-xam yi moo tax am na benn boroom xam-xam boo xamante ni bi nee na toog naa weeri at yoo xamante ni bii guddi su may su ma lekkee guddi sama jigéen moo may yërëm ci njàng mi ak toxal bi ak nafar gi ba di ma saxal may lekk guddi goo xamante ni bii sama jigéen boobu amul jotu saxal ma may lekk nee na guddi googu du ma leer du ma reer ngir sopp xam-xam ngir bëgg xam-xam ak ngir Euh, fonk temps yàlla dogal na cinq minutes laa dese nee nañu am na ñu bëri ñoo xamante ni bii Serigne Mansour moo leen jàngal man mu ñàkk solo mi jàngal nañ ma ñu mën caa cité ñu euh, mën ca ñu mën caa cité euh, oustaz Malick Diop nekkoon fii ci keppaaru soxna Roqee góor gu Madoun Mbaye Sarr dalal Ibrahima Fall mi ngeen xam ancien ministre ba ah kon li ma li tax ma tudd Ibrahima mooy kon loolu yàgg na Ibrahima ku ko dalal ba mi ngi mel ne rek boo nee sëñ Mot Saxir moo dalal ji li mbay ba wane ni kon daara ja daara yàgg na loolu laa ci namm moo waral tudd gi ngeen baal ma bu ko def sëñ Aliou Ndiaye mais sëñ Aliou Ndiaye tam sëñ Mansour moo ko jàng li na ma ba tàyyi sëñ Aliou ba mu booy samay nopp nee na bi leen sëñ Mansour di jàngee miinoon nañu ba tàyyi mu xëy suba teel ginnaaw julleeg wasifa lal di jàngale ndekki li ñëw mu enchaîné di jàngale di jàngale di jàngale di jàngale ba añ bi ñëw yaakaar naa boolub uh, ndéego moo war a gën a tuuti boolu añ ah bu ko defee ñu yëkkati boolu añ bi teg ci suuf jël ndekke ndéego li teg ci kaw mu necci necci necci necci necci necci ba reer jot reer bi bu ñëwee moom tam dañ koy tegale ak añ bi ak ndekki yi nee na loolu fekke nañ ko ba tàyyi ngir fonk temps ak ngir liggéeyal xam-xam kon kooku wax dëgg yàlla yell na bu fi jógee ñu delloo ko njukkal fàttaliku ko li ci des ci waxtaan wi nag xam naa ñi nga xamante ni bi ñoom ñooy contribuer te yàlla dogal ñun ñëpp la njaboote woon xëy na mais ñoom ñoo ko gën a miin gën a jaxasoog moom am na kuy contribuer koo xamante ni bi dinañu tegalal al barnaamijul yawmi son calendrier bi nga xamante ni bi daan na ko teg di ko dunde donte sax xam naa ci lu bari mais dama gëm ni am na ñu ma gën a jeg xam ko te wax ji dafa yaatu nañ leen bàyyi loolu ak kàddu gi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh cheikh seydi mouhamadul mansour na wa aleykum azka salaami wa a'zamu ah. yaa waariduna bi rawdatin kay tanaamu ahlan wa sahlan marhaban bikum ma'an tarhibuna amzalakum mustalzam fala antum سننا فلا أنتم خير ضيوف لمنزل تبريزكم أقرانكم قد يعلم طوبى لكم بتعلق وتمسك بالعروة الوثقى التي لا تضرم لكم الفقار بنيلكم شيقا طبيبا عارفا داء دويا يكتم من أمه بسقامه لنو بخير يشفى في الحيمة يتألم وعليكم خير نجوانا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس والصلاة والسلام على عين الرحمة ووعي الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله maa ngi tàppe sama nuyu sama ziyaar sama ndokkeel ci baatu ñi nga xam ne ñoo ma jiitu bunt bi nga xam ne moom lañu ma wax ma jéem ci ñu ngi koy tuddee al amal al xayriya al marhum al cheikh Mouhamadul Mansour namuzajan cheikh Mouhamadul Mansour le bienfaiteur ngir ñu jéem nag dañu séddale lii nga xam ne moom lañ sant ci ñaari poñ poñ bi ci njëkk moo di xamle al amal al mooy lan moom itam ñu éclaté ko ci ñaari poñ mooy al amal al xayriya naka lañ ko déggee ak cheikh Mouhamadul Mansour si naka la ko déggee woon beneen poñ bi ngi ko ñaareel mooy ñu jàngat al amal al xayriya wàll yi nga xam ne sëriñ bi noon la ko doon jëfandikoo ak ci yan anam la ko doon jëfandikoo kon ñu tàmbali ci xamle jéem a xamle lan mooy al amal mooy jëf yu rafet yi nga xam ne doom aadama dana ko def te togguñu ko ko da koy def ci coobare da koy def ngir jàppale nit ñi ak société bi muy dund loolu lañu miin ci al amal al xayriya muy benn objectif benn jubluwaay boo xam ne jullit ak kuddu jullit yépp da koy dégg noonu waaye suñu xoolee kilifa diine yi dañu gis ne al amal am na ñaari jubluwaay te Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour si ci la bokkoon mooy lief yu baax yi ñuy def ci coobare dañ ko def ngir société bi bi ñuy dundal ak nit ñi waaye dañ ciy sàkku ngërëmu yàlla muy ñaari poñ objectif yi kon ñaar la ci ñoom kon suñu gisee Cheikh Seydi mën Mansour Sy li mu bind ak la mu doon wax ak la mu doon jëf dañu gis ne objectif boobu nga xam ne ñaari pàcc la moom la gëmoon moom la doon jëfandikoo li koy fedd li moom moo di xasida bi nga xam ne da ko defee ci dépense yoonu yàlla indi na ci benn baytu boo xam ne moo ñuy tegtal ne Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour Sy ñaari objectif yooyu la gëmoon ne bien bienfaisance ci la war a nekk mu ngi wax ne atil faqira wa man ata huwa amilun yumnaaka turdi llaha sil sultaani jox ki nga war a jox muy côté social bi waaye nga def ko ngir yàlla muy beneen objectif bi nga xam ne moom la jublu woon ci wax kon gannaaw bu ñu waxee Cheikh Seydi Mouhamadoul suur si naka la dégge woon al amal al xayriya ñu ñëw nag ci jàngat al amal al xayriya moom naka la ko gise woon ñu séddale ko ci ñaari poñ bi ci jët mooy anam yim ko doon defe mooy yan ñaareel bi mooy wàll yim ko doon defe mooy yan ñu gis ne wàll yim ko doon defe bari na waaye mënuñu ko takk ndaxte faw ñu gàttal waaye faw itam ñu tëhal mooy limiter sujet bi nga xam ne moom la ñuy aborder ndaxte ki nga xam ne moom koy defal moo mel noonu parce que ñun dañ ko xamul ñàkk xam biñ ko ñàkk xam nag moo tax ay jëfam itam dafa am yu bëri yoo xam ne duñ ko ci xam parce que moom moo ko waxoon fii waxoon na ne ñaar ñoo ma xam yàlla ak sama papa abu Aboubacar Sy ñun deewul gisuñu yàlla waxuñook yàlla suñu maam Cheikh Seydi Aboubacar Sy bi ñuy juddu fekk na mu nekk barzax kon nag réere boobu ñu réere Serigne Mansour day niru it ne ay jëfem itam dañ koo réere noonu kon nag dañuy junj dong waaye mënuñu takk ay jëfam yu rafet suuf jëfam yu rafet yooyu ñun liñ ci jot a takk alquranul karim dañu indil ñetti wàll ñetti domaine yoo xam ne ñooy domaine al amal al xayriya ci aaya bu sell boo xam ne moom daan na ko jàng lu bari mooy laa xayra fi kathirin min najwaahum illa man amara bi sadaqatin aw maarufin aw islaahin bayna annaas muy ñetti domaine benn bi sadaqa benn bi mooy wax lu baax wax lu baax tere lu bon ci jëriñu doom njëriñu doomu aadama yi ñetteel bi moom mooy gis diggante boo xam ne dafa yàqu wala buy waajee yàqu nga defar ko alquranul karim ñetti domaines yooyu la ñu indi waaye évolution jamono dafa dem ba dañu éclater ñett domaines yooyu ba mu dem ci ñaar fukki domaine waaye dañ ca tànn juróom-ñett yoo xam ne am nañu seede yu leer ci dund bu ñu doon dundee mu Seydi mën Mansour si ak seede yi nga xam ne moom lañu seede ci moom surtout le 10 décembre gannaaw bu mu génnee àdduna le 8 le 9 le 10 booba mbooleem journaux yi nga xam ne ñoom ñoo wax ci Cheikh Seydi Mouhamadoul Mansour Sy seede yi nga xam ne moom la ñu wax ci domaine yi nga xam ne ci la doon intervenir ci bienfaisance ñu tenk ko ci juróom-ñett bi ci njëkk moo di moom daan na intervenir ci domaine boo xam ne ñu ngi koy tuddee attakaaful al ijtimaai mooy solidarité sociale dimbalante ci biir société loolu su ko doon def daan na ko def ci nit ñu bari nit ñoo xam ne ay ñennat lañ dañ doon ñëw ci moom mu leen koy defal wala nit ñoo xam ne day dem ci ñoom di leen ko defal daan na ko defal ay mbooloo yoo xam ne da dem ci ñoom di leen ko defal ñoom ñuy ñëw ci moom mu leen koy defal daan ko defal aussi ay mbooloo yoo xam ne dañu jokkoo ci état mooy ay institution beneen domaine bi mooy majaalul irshad ad diini moom mooy orientation ci wàll diine def leen lu baax bàyyi leen lu bon loolu ku ne miinoon na ko daan na ko def ci ñaari anam jour ordinaire yi bés bu mu génnoon ci saal bi da ko doon def waaye daan na ko def ci munaasabaat yi mooy xew-xew yi nga xam ne moom moo fi am gàmmu tabaski wala yi mel noonu gannaaw boobu am na beneen domaine bu ko ñetteel ñu koy tuddee majaalu taalim al majani mooy domaine boo enseignement gratuit jàngale ngir yàlla bañ cee fayu dara am na koo xam ne mu ngi wax ci jàngale Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour Sy waaye dama bëgg a wax ne man li ma ciy wax lenn la rek mooy gratuité bi nature gratuite enseignement Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour Sy ci loolu rek lay wax waaye la ci des keneen moom moo ko yor jàngale boobu daan na ko def ci ñaari anam benn bi moom mooy dana ko def direct di jonjoog liggéey bi di jàngale arab di jàngale diine di jàngale matières yi nga xam ne ñoom ñoo aju ci société bi waaye daan na ko def indirect mooy wàkkil ay nit ñoo xam ne gannaaw bu mu demee ba mag dab ko mu wàkkil leen au niveau interne fii ci biir Tiwaawoon di def ci ñoom lam war a def ci ñoom ñu taxaw di jàngale la nga xam ne moom la doon jàngale yaakaar naa loolu mën nañ ci cité ñu bëri waaye nag grande ligne yi rek laay indi moom moo tax mënu ma wax kenn mooy bi tariqatin mubashira wa tariqa xayri mubashira beneen domaine bi nga xam ne moom moo ci topp mooy domaine wér gi yaram bienfaisance Serigne Mansour daan agir ci wàllu wér gi yaram ñu mën ko analyser ci ñeenti fonction yoo xam ne dana ci taxaw ci wér wàllu wér yaram benn fonction bi ci jiitu moom mooy faj fajkat la woon daan na faj jàngaro xel daan na faj jàngaro yaram daan na faj jàmmaro jàngaro xol jàngaro ruux yoon euh, Cheikh Seydi man Mansour si daan na ko faj beneen fonction bi moom moo di daan na faj daan na faj yaram mooy ku feebar feebaru yaram mu lay faj kooku moom euh, euh, su may euh, expliquer di def commentaire bi incha allah dinaa ci indi misaal yu bëri yoo xam ne nit ñëpp seede nañ ko gis nañ ne am na beneen fonction boo xam ne mooy troisième boo xam ne mooy wàll nutrition mooy ku feebar ku ne xam na ne mënul lekk lépp moom am na lu mu doon composé di ko jox malade yëpp ñu mën ko lekk ba jóge ci wër loolu am loolu am na quatrième fonction bi mooy dadoon seeti nit ku feebar kon am na ñeenti fonction yoo xam ne daan na ko assuré ci wàllu santé fii majalis siha am na beneen domaine boo xam ne ñu ngi koy tëjale majalul muhafaza alal bia moom mooy domaine bi ñuy tuddee protection de l'environnement l'environnement mooy lan mooy doom aadama yi ak fi ñuy dund moo xam ay mbindeef la yoo xam ne dañu am bakkan wala mbindéef yoo xam ne amuñu bakkan yooyu yëpp daan na ci intervenir ci jëfam yu rafet euh, bi nga xam ne moom moo ci topp moom mooy domaine bi ñuy tuddee tuma nii na tam nu nufuus moom nit la woon koo xam ne sécurité la woon dal la woon ci doomu aadama yi sécurité la assurance la woon ci doomu aadama yi kooku gis nañ ne aussi daan na ko def fi façon yu bëri yoo xam ne ñun euh, gis nañ ne am na ay seede yu rëy yoo xam ne daan na ko ci def ci côté boobu moo xam sécurité la woon pour nit ñi nga xam ne ñoo ko jege sécurité la woon pour Sénégal mais sécurité la woon aussi pour àdduna bi beneen domaine bi nga xam ne moom moo ci topp mooy majaalu xuququl insaan yelleefu doomu aadama ku ko doon toppatoo ci ay jëfam yu rafet la te mu ngi ko doon toppatoo ci anam bi nga xam ne noonu la ko lislaam déggee moom mooy xamoon na lan mooy war-waru doomu aadama waaye xamoon na lan mooy àq doomu aadama fu mu gisoon àq doomu aadama dana fexe mu jot ko waaye fu ñu bëggoon a rekki àq doomu aadama dana taxaw pour àq boobu boromam ñu daal di ko jox su ko defee loolu moom moo di domaine yi nga xam ne daan na ci intervenir waaye après domaine yooyu muy intervenir bari na kuy def intervention ci bienfaisance al amal al xayriya waaye da nga koy def ci yoon boo xam ne du tegu ci yoon wala mu mel neneen waaye Cheikh du man Mansour si dafa am façon bu mu ko doon defee moom mooy dafa am ñetti critères yoo xam ne ñoom ñoo doon encadrer al amal al xayriya inde Cheikh du Mouhamadou Mansour si kaana hunaka thalathatu mabadi tuwajjihu amal cheikh mohamad al mansour fi l amal al xayriya ñett yooyu mooy lan al ixlaas lum doon def da ko doon tëg ci sunna wa ma umiru illa li yaabudullaha muxlisin da doon wax ne amilatu naasiba tasla naaran xaamiya lu ko waral ah liggéey te liggéey ba sellul doo ko war liggéey ba day dem dee dem safara da nga liggéey te liggéey ba sellul beneen criter bi nga xam ne moom mooy encadrer ay jëfam moo nekkoon beneen critère bi ñuy tuddee al adala mooy justice mooy bépp texte boo xam ne nekkoon na ci réew mi su doon def ay intervention am daan na respecté texte yooyu beneen bi ci topp mooy al insaaf mooy équité fu mu waroon a yemale nit ñi daan na leen fa yemale waaye dañuy dem ba ci jamono léeg-léeg ak yemale day doon ak njëng moom moo tax daan na jëfandikoo critère bi ñuy tuddee équité koo gis mu jox la la nga yelloo kon muy ñetti critères yoo xam ne daan na encadré juróom ñetti poñ yi nga xam ne Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour Sy daan na ci intervenir kon ci grande ligne yi li ci des moom moo di tënk li nga xam ne mooy xaatima nga xam ne ñu ngi ko jëlee ci borom xam-xamu diine ñu ngi ko jëlee ci borom xam-xamu aada ñu ngi ko jëlee ci borom xam-xamu politique ñuy wax ne lan mooy suñu taxawaay après Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour Sy mooy ñetti poñ lañ ñu dënk. nee nañu nañu conserver héritage bi benn ñaareel ba nañu yaatal héritage bi ñetteel bi nañu dëgëral héritage bi moo tax benn marsiya boo xam ne def nañ ko ci gannaaw am na ku gëstu di ko wax ne ne mbooleem ñi nga xam ne ñooy doomu Cheikh Seydi Mahamadou Mansour Sy te waxul ñi mu jur dong de dane ñi nga xam ne ñooy doomu tabe Cheikh Seydi Mahamadou Mansour Sy Cheikh Seydi Mahamadou Mansour Sy ci ñan la doon tabe ci wàllu wér-gu-yaram ci ñan la doon tabee ci wàll solidarité sociale ci yan la doon tabee ci wàll environnement ñan la doon tabeel ci mboolem ñett juróom-ñetti domaines yi yëpp nga xam ne wax na noonu la tudde abna u saha i cheikh seydi mouhamadou mansour si moo tax muy wax ci woy bi fa daynun alayna nahnu abna saha ihi bi tawsi ihaasal irsi yabqa wa yudamu kon détails yi gannaaw waxtu wi dafa jeex du fi xëj waaye document bi mu ngi fii incha allah waroon nañ ko mën a traité ci deux heures de temps waaye gannaaw waxtu yu mayuñu ko ñu jëm ci grande ligne yooyu rek asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw dañuy wax ne <clears throat> ginnaaw bi mbokk yi defee waxtaan yu am solo yi nga xam ne <clears throat> ñun ñëpp bokk nañ ko déglu muy fadilatu docteur Hadj Mouhamadul Bachir Ngom yàlla yàlla may ko ak gudd fan. ci ard bu am solo bi mu def ci tarbiya ni ko cheikh alxaaji mouhamadul mansour jàngale jële ko ci njàngale way juram ak maamam cheikh alxaaji malik radiallahu anhu ñu déglu itam waxtu ni amee solo ci jullit rawatina suufiyanke bi ni ko sunu mbokk al ustaad cheikh alxaaji malik fall jàngale mu leer nañ ñu war cee jariñu bu baax a baax ci fonk waxtu ñu déglu itam sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane juuf nga xam ne taalibe la ci sëriñ bi moom itam mu waxtaan ci al amal al xayriya yi nga xam ne sëriñ bi ci la nekk ci la nekk mosu ko bàyyi benn yoon xam naa ñun sunu contribution foofu lay dugg su ma paree danañ jox kàddu gi fadilatul ustaad al muhaadir al imaam al xaaji daam Ndiaye moom tam ñëpp xam nañ ko ak sëriñ bi di doom ci kër gi macha allah su paree danañ jox itam al ustaaz al cheikh alxaji ahmad sarr moom itam di doom ci kër gi mu indi contribution di boroom xam-xam di conférencier bu mag macha allah su paree itam danañu teg jox kàddu gi alxaji xasan si moom itam muy doom ci kër gi di ko taqoo woon ak sëriñ bi mu indi contribution yooyu daal lañ waaw alxaaji Ousseynou Fall moom itam dana jël kàddu xanaa ni ko xaaj Babacar waxe ñu gàttal man sama contribution dana ko tënk ci ñaar yëf benn bi xadiis la boo xam ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne juróom-ñaari yëf a ngi ni yoo xam ne su yàlla baaxee nit ki ba mu góor góorlu ci bu ëllëgee même su fi nekkatul tiyaaba jot du dog dafay wéy di ko fekk fa mu tëdd juróom-ñaari yëf yooyu su ma ko jàngee fiiri ko kon danañ xam ne cheikh alxaaji mouhamadul mansour si alxalifa fii bu tëdd tey war nañu ginnaaw jëmmam waaye bu neexee yàlla tiwa yiw ak ngëneel ak tiyaabo du dañ mukk di sottiku di dottiku ci xabrom bu tëdd bi mu tëdd seydina muhammad sallallahu alayhi wa dafa wax ne sabun yajri lil abdi ajruhun wa huwa fi qabrihi baada mawti comme ko dund dafay jeex te jamono bii ku génn àdduna ñu fàtte la bu la yàlla dimbalewul dëgg sax sa njabootu bopp ak say soxna ak ña gënoon a jege mën nañ laa fàtte ba dootuñu la tudd yonent bi ne kon na nit ki profito juróom-ñaar yi bu mu ci mën a def baax na su ma nee juróom-ñaar yi baax na wala benn bu mu ci def baax na bu njëkk bi moo di man allama ilman ku jàngale xam-xam yaakaar naa ne sëriñ Mouhamadul Mansour bu ñu demee ba tudde ko boroom daara yi ku nekk xam ne di dundam yépp ci xam-xam la ko passé kon mboolem koo xam ne mas nga jàng benn xarf ci sëriñ Mouhamadul Mansour la mu la jàngal ci xam-xam nga jariñoo ko bi mu fi nekkee ak baada wafaatihi loo ci def ci lu baax ci wàllu jaamu yàlla bala ngay seddu sëriñ Mouhamadul Mansour fii mu tëdd tey dana seddu taalif yi fi bàyyi li mu jàngale kaset yi nga xam ne def na ko ci waxtaan fii mu daan toog di wax naan ma teg sama maam nee na sama maam nee na kaset yooyu tey jullit bu ko déglu loo ci jariñu ci yiw boo nekkoon ci ak kàccoor déglu kaset bi tax nga bàyyi ko sëriñ Mouhamadul Mansour tey fii mu tëdd dana seddu moo di man àllama ilman waxtu yu moo ko dul maye ne mënoon nañ ci gën a yaatu te daayira bii nga xam ne bii mooy daayira bis ñi sëriñ bi jàngaloon nga xam ne ñoo waral ziyaara bi sëriñ bi daan leen recevoir fii chaque année di def discours bu am solo ci wàllu xam-xam ñooña ak ku ñu jàngal ila an yarith allahu al arda wa man alayha képp ku ca jaar ba jubbantiku sëriñ Mouhamadul Mansour dana seddu fii mu tëdd xanaa boobu doyoon na ñaata la sëriñ bi jàngal ah ñaata la yar ñaata la defar fa tabaarakallah bu ñaareel bi ci xadiis bi sallallahu alayhi wa sallam ne aw ajra nahran dem ci dëkk boo xam ne ndox daf fa jafe dex ma ca wet ga nga fexe ba xëcc ndox ma mu dem ba ca dëkk ba nit ña di ca naan jur ga di ca wëggu ñu cay arrosé di ca irrigué tool ya nit ña di ca jariñu ci seen wànnu dund ndax wa jaal na min al maa i kulla shay'in xay ñooña itam ndox mooma luñ ca jëfandikoo ci wàllu dund wàllu mbay wàllu jaamu yàlla yow mi ko defoon lu jiitu nga ngay wuy sa borom même boo fi nekkatul tiyaabo ji dafa lay fekk fa nga nekk loolu ñaata la ci sëriñ bi def ñi nga xam ne ñooy wax ci wàllu mbay di wax ci wàllu activité yi sëriñ bi ci wàllu économie mën nañ cee indi lu bare bari ak projet yi mu amoon ak yim jote réalisé moo xam ci waalo la moo xam fii ci ñaay bi la moo xam fu mën a doon ci Sénégal xanaa boobu doyoon na bu ñaareel bi mooy aw xafara biiran sayyidina Muhammad naa na sallallahu alayhi wasallam képp ko gas ci dëkk wala nga def fa forage wala dëkk boo xam ne ndox mu ñu naan daf leen a jafe nga fexe ba def leen defal leen tawfiir alma as-saaliha li shurb même boo fi nekkatul teen booba ku ca jukki naan dàq maram wala mu sangu wala mu jàpp yonent bi nee na sa tiyaabu daf lay fekk sa biir bàmmeel aw xafara biran sallallahu alayhi wa sallam ne am na benn mbokk moo xam ne daf doon dox romb benn xaj mi ngi mbóoya mu ne xaj bii de li ma daloon dal na ko dugg ca teen ba fexe ba génneel ko ndox wala mu jël xuufam génne ca ndox jox xaj ba mu naan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xaj boobu ci um, ka loola ci la ko yàlla jéggale ba dugal ko àjjana ndegam ab xaj mooy mar nga jox ko mu naan dugg àjjana ku fekk nit ku mar nga jox ko mu naan ban àjjana ngay war a dugg yow te yaakaar naa ne li sëriñ bi am ci ay tool am ko ci ay projet lam fa def ci ay forage def ko fa ci ay teen jur gi di ci naan nit ñi di ci naan di ci fóot di ci jàpp di ci sangu loolu ku ko doon wàññi tey du jeex kon sëriñ bi tey ñett yooyu yëpp bu ci nekk tey tiyaaba ja ma ngi koy fekk fii mu tëdd tey incha allahu ci mbaaxu yàlla bi ci tegu mooy aw sa nax lan wala nga jëmbat garabu tàndarma ndax tàndarma ku ci nekk xam na importance bi mu amoon ci dundu arab yi bu ko yonent bi tuddee jubluwu ci rek tàndarma garab gu mën a doon goo jëmbat nit ñëw tëdd ca ker ga kerlu wala mu dog dog ca ab doom lekk sallallahu alayhi wa sallam nee na même boo fi nekkatul ker ga ku ca toog garab ga ku ca dog ab doom lekk donte am picc la sa tiyaabo daf lay fekk sa biir bàmmeel wax naa ko ay mbokk ma ne ko papaam di Cheybatul Hamd Mawlana Cheikhul Hadj Abdoul Aziz radiyallahu anhu fii ci Jagsaaw dafa gaslu woon ay mbalka ñu def fa ndox bu ñu xëyee mun a jël leen dugub ngeen def ca wet ga ndax picc yi nga xam ne dañuy dox mission te xamuñu lu ñuy dox bu ñu dikkee ba tiim suufu jagsaaw gis du gis ndox mi gis dugub ji ñu wàcc cof ci dugub ji naan ci ndox mi continuer seen mission kon loolu tey li ci sëriñ Mouhamadul Mansour def dana ko fekk tey fii mu tëdd tey ci xabroom bu tëdd bii bi ci tegu mooy aw warrasa mushafan toppatoo alquran toppatoo xam-xam taalif ay téere yóbbu ko ci jàkk yi yóbbu ko ci daara yi nit ñi di ko jànge jox ko masaakiin yi téere yooyu sëriñ Mansour defar ba ci téere bii ma yore nga xam ne mi ngi ko def ci alladina yunfiquuna amwaalahum bi leyli wa nahaari sirran wa alaaniya falahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yaxzanuun ku ko ubbi jàng ko soo ubbee téere bi di def tasafux di xool wala nga jàng ko ba tax li sëriñ bi santaane muy ndigalal yàlla nga def ko sëriñ Mansour nekkatu fi waaye tiyaabaam daf koy fekk fii mu tëdd kon bu dee xam-xam sëriñ bi def na ko bu dee dewal dawal ak dex sëriñ bi def na ko bu dee gas teen sëriñ bi def na ko bu dee jëmbat ay garab nit ñi di ca kerlu di ca lekk ca meññeen ma sëriñ bi def na ko bu dee tawriithul mushaf daf ko waqf fil masajidi wa fil jawaamii ak mboolem amakim yi nga xam ne Cheikh Tidiane Diouf doon na ko wax léegi sëriñ bi def na ko ci def na fa ko ci jaanibul amalil xayriya tey sëriñ bi fii mu tëdd tiyaaba ji daf ko fi fekk bi ci tegu mooy aw banaa masjidan wala mu tabax jàkka wala juma te sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ko tabaxal yàlla néeg muy jàkka wala juma doonte dafa tuuti ba mel na fuppi tax xaj yàlla dana la tabaxal kër ca àjjana sëriñ Mansour ñaata juma la tabax ñaata jàkka la tabax juma yooyu mu fi bàyyi jàkka yooyu mu fi bàyyi tey ku fa dugg def sa ñaari rakkay tahiyatul masjid wala nga toog fa jàng al alquran wala sëy buñ fa takk wala dikr buñ fa def tiyaaba ja balaa kan kenn di seddu sëriñ Mansour dana seddu tey fii mu tëdd aw bana masjidan bu juróom-ñaareel bi mooy aw taraka waladan yastaghfiru lahu baada mawti nga am njaboot fa tabarakallahu jàngal leen yar leen teg leen ci yoon te tey ñun ñii fi toog ñépp njabootu Cheikh El Hadj Mouhamadul Mansour lañu ndax dit dana toll foo xam ne dootul bàyyu askan baa yu diine lay nekk képp koo xam ne mas ngaa jaruñu ci moom lu mu gàtt-gàtt tey bu sëriñ bi génnee àdduna rawate na njabootam gi mu bàyyi tey jur leen ci deretam muy sëriñ Cheikh Tidiane si mii xalifaam ak ay rakkam ñu toog fàttaliku seen way jur defal ko istixfaar directement lay dem fa sëriñ Mansour tëdd tey ci biir xabroom juróom-ñaari yooyu laa ne woon moom laay defee sama contribution kon ñu xam ne sëriñ bi nit dana jóg dana fi jóge yaramam moo fi jóge dem waaye fekk na ruuxam ak yu baax yem doon def lépp mu ngi continuer nit dana nekk ci kaw suuf di dund te néew la ndax deful lu baax nit dana nekk ci biir bàmmeelam ñu suul ko dem marmaral ba fàtte ko fekk ne yàlla dana ko sosal geneen dund gu bees wa nunshiakum fi ma la taalamuun bi may tëje sama kàddu mooy xasida bi nga xam ne bàyyam moo ko defoon ci moom waxtu wi du ko may mais danaa ko jàng ci lu gàtt Cheikh El Hadj Abdoul Aziz moo ko defoon ci moom mu nekk contribution fa tabarakallahu njaboot gi yépp Cheikh El Hadj Malick Sy Maodo ak képp ku mu jaboote sëriñ Babacar Sy Mansour ak képp ku mu jaboote sëriñ Abdoul Aziz Al Amin bi nga xam ne ñi ngi koy xaar di borom bis bi wuute fi magam sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy ak képp ku mu jaboote jëme ko ci xalifa bu baax bi nga xam ne Sénégal gépp ñu ngi koy jooy yàlla nañ yàlla dolli taas ci barkeem Baye Abdou wax ne abal habibi fa xaqan nicma masaaka anil ibaadi jazaka allahu mawlaaka ish saliman wa muaafan maljaan wazaran fiina tawilan wa dul baqaai abqaaka wa kunta liddiini shamsan yustadaau biha tuniiru nahja alhuda warrabu yarcaaka wala tara dahra illa maa yasurukumu ila dura almajdi walcalyaai raqaaka qul maa tashaa shaakiran mansuuru daaka xarin fashkuru yazidka fa in shakarta yardaaka laa zilta taxmilu kalla alxalqi ajmacihim wa maa talabta min arraxmaani actaaka wa anta tarfulu fi athwaabi aafiyatin min xaytu ma kunta wal anwaaru taxshaaka wa tanshuru alilma liltullaabi xaytu ataw min ajli daa fa jamiicu alxalqi yahwaaka abal xabiibi fa kun maa dumta muqtafiyan aathaara jaddika xaqan azza sharwaaka laa ziltumu malja addicaafi walguraba taqdi xawaaija man qad xalla magnaaka biidan wa suudan li wajhi llahi xaaliqina dawman wa axjala man qad kaana aadaaka xumilta ximlan thaqilan wastabarta lahu wa kayfa laa wa bihi rrahmaanu awlaaka xilaafatul xayri min mawlaaka fuzta biha min duuni ma talabin mansuuru bushraaka mansuuru thiq bil ali fallahu yaxfadukum laa taxsha kayda al ali fallahu najjaaka hadi hadiyatu ammin mushfiqin gariqin fi baxri wuddikumu hadiyati haaka yaa rabbi salli ala almuxtaari shaafiina wal aali wa saxbi mal muttaru na jaaka xasida boobu waxtu wi duma ko may ndax li ma amoon ci temps jeex na waaye bay ab du moo ko defoon ci doomam cheikh alxaaji Mouhamadul Mansour di leen jotal nuyoo ak ziyaaru cheikh alxaaji Malick si Abdoul Aziz waaw sëriñ Sid Ahmet a ngi fii sëriñ maam Alpha gi sëriñ Xalifa gi fii ànd soxna Faat si bu cheikh alxaaji Mouhamadul Habib ànd soxna Faat si doomam ñu firi ko waaw ànd ak soxna Faat si bu cheikh alxaaji Mouhamadul Habib mi ngi ñëw ci délégation bi Serigne Maodo yebal ànd ak soxna faat si doomam fa tabarakallahu mu tudde ko soxna faat si Mansour ànd ak soxna umu xayri si mu tudde ko soxna umu xayri borom waañ bi fa tabarakallahu ànd ak Serigne Cheikh Omar si di doomam ak Serigne Moustapha si di doomam ak Serigne Moustapha si bu Serigne Thierno Serigne Pape Diop ñoom ñëpp ñu ngi fi bokk ci délégation bi macha allah Serigne bi nee na rek moo tax ñëwul waaye mi ngi bokk ak ñun bis bi baax a baax sëriñ bi dafa wax ne Baye Abdou dafa wax sëriñ Mouhamadul Habib ne ko yow bàyyu Habib waaw dañuy tudde alkunya dàkkantal yi jàng nax wu xam nañ ko nit ki dafay am tur ba noppi ñu jël ko askane ko doomam bu góor abu nangam abu nangam abu nangam mu ne ko abal Habib yow bàyyi Habib fa xaqan ca dëgg-dëgg neex ma baax na masaaka sa doxin ak sa jëfin ci adduna ak ci wàllu diine anil ibadi jazaka allahu mawlaaka man sa baay maa ngi ñaan xasida bi góor gi dakaar la ko defee woon le 30 avril le 30 avril xam naa bii dafay le 30 mars waaye tuutee tee mu tombe 1994 mu ne ko jazaka allahu mawlaaka yal na la yàlla yàlla fay anil ibadi ci sa taxawaay ci jaam ñi sa njàngale sa yar sa liggéey ak projet yi nga am yépp di ci jariñ jaamu yàlla yi loo ci def rek yàlla nañ yàlla wutu fayal ñu la góor gi ne ko ish dundal yow xaaji Mansour saaliman ngay aji mucc yàlla bu la dara jot wa muaafan yàlla na nga am jàmm wa maljaan wasaran yàlla boo dañ mukk di wéeruwaay Baye Abdou ne ko yow Serigne Mansour ich dundal lu la soob saaliman nga am jàmm wa muaafan maljaan wazaran yàlla na nga nekk wéeruwaay fii naa tawilan yàlla bàyyi la ci sunu biir ñoo la jur de mais ñi ngi lay ñaan nga gën ñoo gudd fan fuuf wadul baqaai abqaaka yàlla bi nga xam ne moo fii des ba faw wal baaqi yàlla na la fi yàlla bàyyi yow Serigne Mansour nga dugg dund lu gudd a gudd yàlla boo ci yem boo fi nekkee itam yàlla na nga nekk jant boo xam ne yaay leeral jaam ñi wa kunta li diini shamsan yustadaau biha tuniiru nahjal huda wa rabbu yaraaka ngay leeral yoonu njub te yàlla boo dañ mukk di nekk ci càmmug yàlla wala tara dahra illa ma yasurrukumu yow sëriñ suur man sa baay Abdou maa ngi lay ñaanal yàlla boo gis mukk mukk mukk lu dul loo xam ne daf lay bégloo ci sa yaram ci sa jëmm ci sa njaboot ci taalibe yi ci mbokk yi ci réew mi ak képp koo xam ne yaa ko njaboot ilaa dural majdi wala alaya i raqaaka sëriñ Mansour foo toll Baye Abdou nee na na ngay dégg wiiw rek waaw fa njob kawe nekk ak teraanga yow sëriñ Mansour yàlla na nga toog ca kaw ferankulaayu qul ma tasha waxal lu la neex shakiran Mansouru nga def ko sant sa borom ndax lim la defal rëy na daaka xarin loolu yey na te jaadu na te yell na fashkur yazidka foo toll na ngay sant yàlla fa in shakarta yardaaka fa in shakarta boo santee rek yàlla dana la gërëm la zilta taxmilu kallal xalqi ajmaihim yàlla boo dañ mukk yow sëriñ Mansour di yanu benke ñenkey jaam ñi ak seeni problème wa ma talabta min arrahmani ataaka képp ku soxla ba ñëw ci yow jaaxle di la ñaanloo wala mu wax la soxla wala nga am benn soxla mu jaral la nga jàkkaarloog sa boroom di ñaan bala nga koy sàkku yàlla na la ko yàlla jox wa anta tarfulu fi athwaabi afiyatin yàlla na la yàlla may jàmm mbubum jàmm yàlla na nga ko sol mu ëpp la sax ba faaf di direeku min xaytu ma kunt ak foo mën a nekk wal anwaaru tarshaaka yow Cheikh Alxaaji Mansour foo nekk yàlla na la leer yi muur ci wàll yépp nag te ñaanu nitu yàlla lele waaw xut bu zamaan bu toll noonu wax lii mu bàyyi ko ci dënnam bu leer ba jëme ko ci doomam di soppeem ñaan gu nangu la qataan insha allah bàyyi abdu ne ko laziltumu malja addiaafi wal guraba xaj mansuur yàlla boo dañ di wéeruwaayu ñu lompañ yi ak ñu tumuranke ñi di leen defal yiw foo toll taqdi xawaaija man qad xalla magnaaka képp koo xam ne wàcc na ci sa kër indi fi soxla moo xam feebaru yaram la moo xam feebaru xol la moo xam feebaru ruux la moo xam makka la bëgg a dem moo xam kër la bëgg wala la fa bëgg soxna lépp luy aajoom bu la jublu see bala muy ñëw yal na la yàlla yombalal loo ko mën a faje bii dan wasuudan ñii ñëw nag moo xam ñu weex la moo xam ñu ñuul la fu ñu mën a jógee rek bala ñuy ñëw yàlla na la yàlla ubbil terrain bi li wajillaahi xaaliqina daw man wa axjala man qad kaana aadaaka képp loo ko xam ne daf laa noonu yow sëriñ Mansour yàlla na ko yàlla teg gàcc yal na ko yàlla rusloo yal na la yàlla rusloo fa tabarakallahu na ko yàlla rusloo képp koo xam ne daf laa noonu bëgg ci yow safaan lam bëgg yàlla bu mu ko am xumilta ximlan shadidan wastabarta lahu mu ne ko sëriñ bi jàmbaar nga de ndax yan bi ñu teg ci sa kaw yan bi diis na lool muy xilaafa gi te booba mooy bi sëriñ Mouhamadul Moustapha si mi nga xam ne mooy taawu cheikhul xalifa radiallahu anhu génne àdduna mu toog ci xilaafatu way juram mu ne ko xilaafa googu de diis na ci yow metti na nag waaye muñ nga kon maa ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moo la teg yan bu diis boobu fa tabaarakallahu yal na la yàlla jàppale xilaafatul xayri waaye nag jàppal ne xilaafa yiw la ndax ki nga wuutu ku baax la nit yiw la woon baayam ko baax la seen maam ku baax la famille bi ngeen bokk yépp ñu baax lañu kon xilaafa gi dara mënu cee bàyyi ko lu dul yiw min duni ma talabin mansuuru bushraka bushraka mansuuru bi moo jiitu busraku mu mansuuru bu ñaareel bi kon mansuur yal na la yàlla bégal foo toll yal na ngay gis yiw li ma lay dénk daal yow sama doom mooy man suuru siq bi bil ali waaw sa kóolute ak sa confiance foo toll nay dëgër ci sa borom fallahu yaxfazukum yàlla dana la sàmm yàlla dana la protégé insha allah laa taxsha kayda al ida bul ragal mukk noonu bu taxaw di tëral ay pexe pour bëgg a dal ci sa kaw fallahu najjaaka yal na la yàlla musal ci bépp jëf ju bon lii nag ma la jox kado la hadi hadiyatu am ammin sa baay tëx kado la bu bàyyi ko ci moom mushfiqin bu am cofeel ci yow yow sëriñ Mansour xariqin boo xam ne cofeel bu doon géej man alxaaji abdul aziz lap naa ci géeju sopp la hadiyati haaka kon yow sama doom kado bii ma la jox te yow ko ak loxo yu dëgër yaa rabbi salli ala almuxtaari shafiina wal ali wa sahbi mal mutaru najaaka ngeen baal ma sànq bi ma ilim délégation bi sëriñ Cheikh El Hadj Malick ji yónnee dama fàtte tudd Serigne Babacar mi nga xam ne mooy taawam mu tudde ko Serigne Babacar Mouhamadul Mansour ñëw na ànd ak rakkam di Cheikh El Hadj Mouhamadul Habib mu tudde ko baayam Cheikh El Hadj Habib Serigne Babacar si ànd na ak soxnaam soxna may mun a ndooy ñoom ñëpp ñu ngi ci délégation bi. ani bihi Cheikh al dal nada. man xaadana naxwa al ula فالجزاء عنا ربنا خير الجزاء كما ينير طريحه فيعظم شيخ سيدي محمد المنصور لنا بايم وعلى النبي مع آله أصحابه radiyallahu taala an ku ko sopp defal ni wa ala nabi mali ashabi alqa ah. salatin daiman yatakallamu ah. wa kadaka man yaxful athara jamiahum dëgg la kamalazina wa huwa almumidul mirsham maarad mansuru salaam mali fidyatee السلام وأعظم ما رد منصور لم يفيد وعليكم أزكى سلام وأعظم ثور الخليفة والإله أعلى يرضى يغني المريد كما يرضى ويأوى إلينا زور الخليفة والإله الأله يغني المريد كما يرضى ويأوى زور الخليفة والإله أعلاه يرضى ويدمن سلمين زور الخليفة والإله على يون المريد ما يرضى ويهوى من زاره بسليم القلب لمنا فاسأل به كل من ترى يخشى والإله أعلاه يهدي المريد ما يرضى ويأوى من زاره كرة أحل بشاتي من زمن يفوز به معنا ومن سيب نعمه زور خليفتي والإله أعلاه يهدي المريد لك ما يرضى ويأوى فلص به أيها المريد واعتصما بحبله تنا للتوفيق المنصر زور الخليفة والإله على يعلن المريد لك ما يرضى ويأوى فلص به كان لي لما فاز حي حيث جرى من لاذ بالأولي يا يغفر بي من حاه دور خليفتي والإله أعلاه يولي المريد هكا ما يرضى ويأواه لكم خير قوم نلتم وزرا يهدي المريد لا جنات مولى مزول خليفتي والاله اعلاه يون المريدك ما يرضى ويرضى شيخ هدى واهتدى بهديه فرمان زمان زور خليفتي والإله أعلاه يوني مردك ما يندى ويعوى كنك ويجلين كجد ويجي مام آس أم سينجرم يا وانا واجه كنك ويجلين كجد ويجي مام آس أم سينجرم